Écoute sur RFM. Ah, jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf Yacine Pouy jaajëf per bu xar euh, pep pour nga xam nit ko am xaalis da ngay xool sikkimu per bu xar bi loolu sikkimu ko am xaalis la jë <laughs> jërëjëf euh, internet yeeg auditeurs yi alhamdulilahi rabil alamin euh, Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, Sénégal ak internet yeeg ñi nekk Europe ak ñi ne ñëpp di laajte ndax njaay dafa bàyyiwul mu ngi ni toog su ma xamoon ni Ndiaye tey day ñëw dama lay invité ndékki indi kuy traité traiteur ñoo def temps yi moom loolu laa jël moom teg traiteur muy defar ndékki mais Ndiaye sama waaj maa lay siyaar maa ngi lay delloo siyaar gi bu baax a baax Ababacar. mbaa mu ngi dox delloo alhamdulilah rek. alhamdulilah bàyyi teel na treize ans de service kese. ah dafa teel. waaw loolu ah? mën ngaa demal ba ca kanam. waaw ba ca kanam ak kanam des na lu bari macha allah yàlla ñu yàlla cause bi yàgg na de. ah cause bi dafa fekk nga nekkoon ci ay euh, yaram yu sutante. Ah, déet mais xam nga congé boo ko dajalee loolu lay jur xam nga jamonoy Covid gi kenn demul woon. Ah. ñëpp fi toogoon. léegi nag. Euh, yooyu yëpp a ngi ci. man nag amoon naa benn erreur nag man maa man sax maa ngi doon wax euh, passe partout maa ngi naan ko xam naa ne Maodo Mouhamed Ndiaye. Mhm. congé ay doomam. bu <laughs> ñu lay dégg naa ko dégg naa ko abaa yow j'étais à l'œil mais ziar naa sama waa ji. traiteur yi di woon ba nga invité artiste bu baax boobu rek. Kéba Seck. Euh, loolu it umpu ma. waaw yooyu laay def. waaw yooyu yëpp mi ngi fi en tout cas am naa mbégte lool. ñëwaat àndaat ak yéen ci xalaas àndaat ak auditeurs yi. ñoom it di leen sant bu baax a baax waa waa Sénégal euh, di sant mbooleem koo xamante ne ji rek euh, sa fong groupe Futur Média rawatina ñi fiy liggéey kenn amul seen fay léeg-léeg da ngay dem ba ba ba toog bi noppalu sax dem liggéey da koy gën. ndax da ngay dégg ñoom ni ñuy waxee dégg laajte bi dégg ñaan yi moo tax kenn amul seen fay nañu gën a doolee góor rek mais li fi baan waxoon ma koy reetaan mooy xalaas déglu koo gën a neex def ko. dëgg la ah xalaas boo toogee sa kër nii. mais Ndiaye yow euh, boo toggee nan lay def euh, maanaam euh, attention gi nit ñi di am ci yow njaay fu nekk njaay looy def SMS yi ngay liir commentaire yi yëg ni nit ñi dañ laa bëgg ba dañ laa namm yow loolu yëg ngay am. <laughs> sant yàlla rek Ababacar sant yàlla rek. man de. ah yow it tu es <laughs> yow it tu es xam nga ñu baal ma dañuy wax ne l'adoration pour Dieu waaye yow ah, ah, it tu it ah Ndiaye passe-partout. nañu doolee sant yàlla rek Aba. sa waa ji di la ziar sama waa ji. sa waa ji excellent man maa ci gënoon sonn. wax naa ko sànq waaw. maa lay ziar bu baax Aba di dalalaat Ndiaye suñu Ndiaye national bi ñun ñëpp ko namoon. di nuyu auditeurs yeeg internet du ziar ñëpp ñu ñuy déglu ci waxtu wi di wax Ndiaye dalal ak jàmm. sponsor yeeg partenaires ñoom itamit amoon nañ la lool. waa waaw ñoom it ñoom it ndeysaan. Mhm. ni ma namante déggante ak auditeurs yi noonu laa namante également ñëwaat fii maa ngi leen doon gis boobu ba léegi di ca war yëpp yéen euh, gis naa ne partenaires yi kontaan nañ ci yéen. dañ doon jéem déedéet ah léeg-léeg ma gis passe partout léeg-léeg ma gis Abba ma xam ne partenaires yi daal bég nañ ci yéen. dañ doon jëm Ndiaye. dañ la fii de. xalaat ko sax déedéet ku ci dañuy door rek Optic Vision Plus hmm. Sénégal nga xamante ne ji euh, ñoom it euh, waa réew mi ñoo leen bëggal seen bopp ni waa réew mi safoo xalaas ni waa réew mi bëggee RFM noonee la ñu bëggee Optic Vision Plus Sénégal li tax mooy li ñu soxla ci ay lunettes de qualité lunettes yu garantie lunettes yu moderne lunettes yu yomb accessible également bu ngeen ko bëggee da ngeen dem ci boutique Optic Vision Plus Sénégal léeg-léeg hmm. nga gis concurrence beeg imitation yeeg toppandoo yi mais li di wax mooy lunettes yu baax te garantie moderne te te te rafet teg ci design bu amul fenn bu ngeen ko bëggee da ngeen di dem ci boutique Optic Vision Plus Sénégal yi showroom bi mi ngi fii ci VDN bi soriwul bu fekkente ne da ngeen dëkk ci région yi mhm. xam leen ne léegi am na boutique Optic Vision Plus Sénégal bu nekk euh, Saint-Louis am na boutique Optic Vision Plus Sénégal bu nekk euh, Louga am na bu nekk Touba am na bu nekk Mbour am na bu nekk Kër Mbay Fall lépp rek ngir ngeen bañ amati benn problème lunette partenaire beneen moo di LPM librairie papeterie Mohamed mhm. ak plus de quatre cents articles scolaires mhm. moom bi mu ñëwee ba léegi parents d'élèves yi dañoo noppalu ndax librairie papeterie Mohamed li nga bëgg ci fourniture scolaire lépp la lay jox fàttewuñu nag ñi nga xam ne ñoo di arabisants yi ndax ñoom it li ñu bëgg ci euh, indi na ko ba noppi nag daj mi ndax ñi ngi Mbour ñi ngi Ziguinchor ñi ngi fii ci Dakar ñi ngi Sandaga mhm. hello partenaire di euh, supermarché scolaire bi nga xam ne moo nekk ci immeuble le forum jàkkaarloo ak université Cheikh de Dakar bu ngeen fa demee lu ngeen bëgg ci fourniture scolaire di ngeen ko ne chaque année mu def différence. LPM mhm. moo ko indil. mooy téléphone yu garaaw yi téléphone yu yéeme yi téléphone yi nga xamante ne ji euh, lu mu teg rek teggi ko du yomb. mi yoon day téléphone yu garantie mi yoon dafay téléphone yu accessible mi yoon dafay téléphone yu rafet revendeur téléphone bu ngeen dem laaj leen téléphone mi yoon yi dañu nekk nag ci promo suba naa la indil prix yi ak yan téléphone portable la waa mi yoon di def promo jamono ji mhm. mais daal marque bi moom téléphone mi yoon lëmbee am na solo njaay cambriolage Ndiaye Dragon Gaynde Ndiaye ba ci Imaam Ndiaye def nga sa def nga sa parcours. Imaam Ndiaye waaw. <laughs> Fass xalaas bi njëkk. Imaam Ndiaye def nga sa parcours de. dëgg yàlla euh, Modou Gueye bi ans de service mu ne ma quatorze ans boole ma ci année stage bu njëkk. bi stage la boole ma ko ci. Modou Gueye nag moo la wax ba wax la jour bi nga fi dugg. lan jàmbaar la de non waa génération Futur Média ñoom ñoom ñoo lay ñoo ñoo ñoo ñoo lay ñoo lay kii xam xamb pour nga delluwaat ci liggéey. gars mm-hmm. mm-hmm. yi ñoom la laajte. jàmbaar lañ man damaa xam ne ba benn waaye def TikTok da baax TikTok naan ana Ndiaye. ana Mouhamed Ndiaye woote yi message yi Ndiaye Ndiaye Sénégalais bëgg nañ la. ñooñu dañ lay ñooñu moom booy liggéey groupe Futur Média lii tax nga gën a bëgg toog. les génération groupe bi la ñu bëgg. Mm. groupe bi la ñu bëgg. boo feebaree ñooy seet boo absenté ñooy xool boo defee lu baax ñooy apprécier. Mm-hmm. boo ki oh ñoom. bu la nit tooñee ñu fayul ils sont excellents. ma ne ko bu la nit tooñee ñu fayul la ñoom ñëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax a mu mujjee wa dara laajte. andi cuuraay ndeysaan sama xarit la ko baax la. am na julaay bu baax la eh, am na tamit sama beneen waaye ju baax joo xamante ne ji yaa tax mu xam ma. Mhm. Paco lañ koy wax. Paco te jaay xar. nawal côté Ouest Foire. waaw waa ju baax la. Paco sama ah Paco <laughs> Paco mi jaay ndawal yi. Eh. Paco. Paco moom ah. ku soxlaati voilà ku soxlaati ndawal lu baax ci Sénégal wax naa ko ba tey de ah seetal ma numéro bi ci kanam tuuti wax naa ko ba tey ci xalaas gi seetal ma numéro Paco xam mm-hmm. nga congé day baax nga am loo toogaale ah, dëgg la de <laughs> seetal ma eh, numéro Paco doon noos yow ma ne ko yow <laughs> ki doon noos fuñ jëm paas Ndiaye ah. xam nga vendredi dafa am benn maire bu fi ñëwoon euh, doon déclaré doomam bu juróon gaal gi mm-hmm. ñu wax ni gaal gi mu fi départoon veille tabaski gaal ga nag ci ay rumeur dañ ne suux na ba kenn dund ci Hmm? waaw mais maire moom daf ne fépp fu mu dem dañ naan ko ñooñu deewuñu dañ leen a jàpp ci bërëb. ñan ñoo koy ay seetkat. seetkat yi ñu ko waxee vendredi waxoon naa fi ne ku la wax ne la am na fu ñu ko jàpp naroo fu mu nekk kii nag moom day confirmé na gaal suux na hmm. ba am na si ñoo xamante ne xam na leen ñaaral nañ leen. Hmm. ñoom nu mu ko xamee daa bokkoon ci gaal ga. non daa dafa xam ñu si nekkoon. ñaari gaal la presque ñoo demandoo mais benn bi dafa teer Maroc ba ñu jàpp leen ba rapatrier leen. fu ñu jógee woon Sénégal waaw. beneen bi départ Tëngéej bi nawet bi di wax amoon plus de quatre-vingts personnes boobu moom nañ jàpp ni seen mbokk ñaan nañ ci ñu bari. waaw léegi kii moom moo lay jox xibaar bi. déglu. dix jours avant tabaski la woon la fi gaal googu déparé woon te mu ngi déparé woon ndar mais ñu ëppoon ñu nekk ci gaal gi ay waa Kayaar la woon waa ndar waa Mbour euh, ak tëkk ngeen bi noonu gaal googu moom kenn nit moo dee ci gaal gi te moom ci biir gaal gi la dee dafa feebaroon. waa daal dafa départ rek mu feebar bi gars yi dawee deux jours si la fu gaañu gars yi sànni ko si biir ndox mi bi ko yi sànnee noonu si la nit ku moom continuer di daw buñ ba ba dugg Maroc si la leen ngelaw li dab dina ngelaw dabee nag si la si la leen naari jàpp leen naa jàppee ñu teeral leen foofu Maroc ñu teeree Maroc am nañ fa presque deux jours yooyu deux jours trois si la leen rapatrié indiwaat leen ñu am na ñu ciy tee nag mooy nga xam dawal gaal geeg yooyu noonu capitaine si la leen tee boobu nag bokkut ak bi maire bi di wax li maire bi wax boobu tamit am na ay waa Kayar ay waa Kayar yi nga xamante ni ñoom seeni mbokk toog nañ lu mat deux gisuñu leen yàlla defee ñu màggali màggal Tuuba gi nii ñenn ñi seelal leen seen sëriñ sàqu ñu nañ leen ñaanal ñu ñaanal leen ndax koo toog deux mois gisoo ko déggoo ko la daa tëmb dem dem calendrier moom amoo benn nouvelle ci moom kenn mu woo ah ñoom it ñu jàpp ni dañoo des mi rek moo tax ñu ñaar leen di ñaanal ñooñu dëkk Kayar am na koo xam ne a dëkk kon mën naa Daaru Salaam koo moom ñaanal nañ ko moom

xam nga xam nga par exemple gaal bu demee moom bu suuxul soit di am information ni ñii jàpp nañ leen soit dugg nañu Espagne wala jàpp nañ leen ña nga ca kaso Maroc ya ñaar moom faaw duñ ko am. mën nag yaakaar naa di wër di di wax di wër sa mbokk mu des ci gaal gi jàpp sa mbokk ba dugg ci gaal gi da ko da koo gën a noppale moo ko gën nag. mais Ndiaye bu ñuy dem ci gaal gi kenn du leen yëg. waa léegi nag man laa war di doon wax le peuple xaw ma lan mais kuy dem te yëgu la yëg yëgalu la ko ah bu réeree maandu ci. ñenn ñi dañ leen yëg nga kii coono bi mu teg yaayam mu leer ko ne tey jii bëccëg gii du ndékki lu mu xam du añ lum xam du reer lum xam parce que da doon laam-laamee. Mhm. ndax doom ji mi mi mi ngi dund wala ndax doom ji dundul. seetkat yi nga xamante ne jii moom la yàlla xam doy na am na ci ku ma mës a seetal ne ma moytul borom nel bi ngay dajal par fajar <laughs> borom nel bi ngay toogal par fajar mais abaa la moytoo moo yàqu na <laughs> yaa ngi dégg seetkat yi nga xam ne moom dañ lay gën a réeral mm-hmm. moo tax nañuy noppal suñu waajur yi nañuy seet luy lu jaadu ñu du ci dox xam nga ne kii ak ñaanalu ma leen ko de waaye bu fekkente ne li waa ji wax nii moo am. Mhm. mooy lor nay mbokkam teg na leen ci jaaxle. te xam nga gaal gu suux moom du benn nit rek moo cay faatu. yenn yi nag toog da koo gën. dëgg la fenn neexul di ko booy dem di wuti fenn neexul yaakaar na nga bëgg sa yaay wala sa papa nga wuti ba am mën koo jox mu noppalu ko waaye dem di wuti ba yow faf see ñàkk yow euh, li nga xam ni yow sax danga nga dootul dundati léegi ñoom dañuy gën a sonn ma ne la fenn neexul dégg naa ci ci wéewu bay ñu ne ku nekk ci ndox boo koy seet doo ko gis maanaam seetkat yi di seet nii hmm. ku ne ci ndox bi nga ko gis moo tax dañ naan mi ngi ci bërëb rek moo tax doo gis doo seet ku am nel ba gis ko moo tax Ndiaye sa seetkat boobu nga wax te ñi leen di convoyé nag kii Ndiaye ñi leen di convoyé eh. di jëlee Dakar ba Maroc ba bitim réew ñu ngi fii ci réew mi fii am na fi nekk fii keroog dama dama damaa jàngat benn mbir bu doy waar mhm. xam nga kaso moom mënta neex waaw chaque jour kaso yi Sénégal yi nga dégg détenu yi di jàmbat condition yañ fa nekkee mhm. kaso moom mooy investissement mu rentabilité mhm. kon ah, kaso munta neex ah. ginnaaw bi ma yëg ne Rwanda am na fa kaso boo xamante ne ji ñañ fa tëj dañuy xiif hmm. ñu baal ma ci kàddu gi bay lekkante seen biir eh, kàddu nga foofu yeggaguñ fa hmm. moo tax nañu jàpp ci lu ñu am nañu toog ci réew mi jéem a tekki ci réew mi mais jëli gaal pour tukki dara jaru ko ci àdduna dëgg fu ñu jëm somam Petite Côte Ndiaye. Ah. yow keroog abaa def nañu fi benn xalaas mooy waa ji ñu duggoon këram cambriolé ko. waaw ba pare jël caabi otom yóbbu. Mhm. loolu nag chaque semaine léegi moom moo am ci Petite Côte bi. may la ku ko xam ko def. waaw chaque semaine. moo mhm. sali Saly wala Mbour wala Somone ndaw si këram lañ dugg fekk ko jëkkëram dugg biir néegam tiimaloo ko ay paaka ramassé kër gi yëpp taal oto bi dem ak moom. baadu booy yi ñëw pique si. <laughs> pique ba jël ay bagages si jàmbur booy bolowmaan yii di dem di pique-nique mbaa du ñooy dugg ci kër jàmbur yi di. suñu borom ni sàmm xam noonu lañ ko defoon. buy bëgg weekend yi xam nga booy leen bëgg weekend seen poste du ko attan lu romb dañ koy weekend. boole ceeg li ñuy jël. volé volé volé la ñuy jël ko bërki démb dañuy bi yàq na yow. doo rus kenn njaay bu ma fu la woon ni tey li ma lay rus rus bu ma volé woon nga bàyyi àdduna. waa déet bërki démb boo njaay lañ fi gis benn graaw wax ji de yëpp dañu xam ko moom nañ bàyyi noonu. Ah, mën nag Ndiaye dinaa mës a ñëw fii mën nag Ndiaye dinaa mës a ñëw fii toog. essayé ñam duuti volé. ma volé xool sama relation ak El Hadj Assane ak Babacar Fall ak yan relation lay am ak ñoom. doomu ma dimbali indaale ma ci benn. su ma volé wee. bu ngeen volé gis ku marché. El Hadj Assane dugg ci. ngeen yow dina volé leen rek. <laughs> ñu dem sama ñëwaat. maa ngi ñaan ndimbal ndax li ki ñu def lii sama sœur la. sama mag la ñoo bokk dañoo dugg këram cambriolé ko nuy di euh, samedi au dimanche quatre heures du matin mu metti lool ba ñu duggee nag dañoo dugg ak force ci biir kër gi ñaari nit a dugg ci biir kër gi mais xamuñu ñu ne ci biti mi ngi amee somon waa somon nag sonn nañ lool te du moom dong lañ ko def parce que jëkkër ji moo njëkk a dégg affaire yi mais ba muy jug pour daw di xool yëf yi trop tard na ci lañ ko toppee ak ay paaka ba ci biir néeg bi mënul woon sax wax jabar ji wool police jëkkëram ji nasaraan la ba ñu ñëwee ñu fekk leen ci kawlal bi fekk sama mag mi ngi tëdd ci kawlal bi ñu ñëw jël ay paaka tiimale ko nangu chaîne or yi mu takkoon jël portable iPhone 13 am jël portable jëkkër ji ak ay ordinateur portable tourné nag yore seen bic ak seen feuille bind code yi ku ci nekk sa code code code jëkkër ji bind nañ ko sama code mag bi tamit ñu jël ko ñu bind ko ba loolu amee ñu tourné waat tiim sama mag ak paaka naan ko wax ñu fu coffre foor bi nekk sama mag neleen man sama kër amul coffre-fort te amoon nañu gardien nag gardien bi dañoo arrêté woon contrat bi le 3 yëf yi mi ngi am le 15 kenn xamut kenn jiiñul kenn dem nañ police dem nañ gendarmerie dem nañ brigade de recherche dem nañ brigade des touristes fu ne dem nañ fa. foo xalaat rek te ñooñu noonu di def lu bon lii dañuy cibler këru tubaab yi. ba ñu jugee foofu askil pare dugg nañ kër voisin bi mais ñooñu seen kër dafa armé wu donc dañoo jógee foofu rek dugg sama kër mag ba ñu jëlee seen bic ak seen feuille bind nañ sama code téléphone mag sama code téléphone jëkkëram ba pare tourné laaj ko compte Wave bi ak compte orange money bi jël ñu jël fa ordinateur portable ubbi saag ba fekk sa cent mille francs jël ko retiré nañ nag tamit compte wéb bi mais waa xalaas waa somon ak waa ngapparu waa sali ñi ngi bëgg a dee te barki dem moo njaay la ñu dugg tamit kër tubaab fekk ko fa dóor ko ba muy bëgga dee nangu la mu yor yëpp takk ko ba mu ne ngodd duggaat tamit feneen rey ko mais ñi sonn nañ ñu tourné yam ci caabi oto bi tamit yóbbu oto ba fu nekk nag dem nañ Duster 27 74 BL 2019 sonn nañu torop tay nañ man sama sœur mënul wax parce que moom instant bii may wax ak yow dafa traumatisé wu muy moom ak jëkkëram fu ñu xam ndimbal ak wallu dem nañ fa sonn nañu torop ñi ngi ñaan na ku gis 27 74 BL nañu ñu ci jàppale. ma ñuy génn dañ neena caabi ci biir néeg te ay xale lañ duñu ay mag. kenn ki xale la kenn ki nag moom xaw naa mag tuuti rek mais xamuñu woon ñaata moo nekk ci biti kër gi dañ ko daj parce que ñu ngi dugg foofu noonu ay quatre heures du matin ko heure boobu noonu seen normal bi da ngay nelaw te en plus sama sœur bi mënu woon gis seen kanam yi parce que dañoo takkoon ay masque sanitaire mooy masque yi nga xamante ne dafay jar ay cent francs yooyu la ñu takkoon ay xale lañ daal parce que sama sœur bi moom ci ay description am nee nañ bu ñu magulee doom ji tamit xam naa ne ñoo tolloo daal loolu lay wax kenn kee gën a tuuti keneen kee gën a mag ci biti xamuñu leen parce que ñoom miir bi dañ ko tëb parce que buntu kër gi kenn mënu koo ubbee noonu daaj ji buntu yéeg ba ci kaw a kaw ñoom daal yàgg nañ ci kër gi daal def nañ fa à peu ay trente minutes yooyu boo bëggee dëgg yàgg nañ ci kër gi trop di fuye xamuñu nag ñaataa nekkoon ci kër gi parce que ñoom dañ leen dañoo dañoo nekkoon ci biir néeg bi ñaara nekkoon ci biir néeg bi yore seen i kii di fuye kii tiim sama sœur beeg jëkkëram noonu daal la demee daal dégg ramassé kër gi yëpp téléphone yaag machine yëpp dugg ci oto bi taal oto bi yóbbu. mais cambriolé nañ ñu nite nag. Mhm. déggoo nee na yor seeni i paaka tiim sama sœur beeg jëkkëram. loolu genre abay fa lay nekk di aaloo ko xataraay pour wane seen bopp. bàyyi naa loolu loolu bu yàgg ba la xam nga sœur sœur nga déggoo ci. Mhm. rey nañ jiw. yóbbu nañ bagage ya mhm. moo tax léeg-léeg aussi gis nga nit boo gis nga li li li li li li li euh, su ma juumul sëñ Babacar si moo ko doon wax. radiyallahu taala anhu ku la matul noonu bu mu la mat nawle mm-hmm. ki ñëw di la sàcc mm-hmm. ñaanoo yàlla mel ne moom mm-hmm. boo ndee fitna yaa indeel apaisement bàyyi ko fitnaam au moins buy dem bàyyi la ak bakkan parce que yii ñuy jël nii moo leen di def lu nekk buñ ci paree nag soo ko li jëlti nag kaaraange gi ci biir kër yi ndax di tëddi nelaw ñu la fay fekk di la cambrioler ah te ndeysaan ñu ngi yàq fu neexoon petit lii moom tendance fu moom Ndiaye hmm? fan lii <laughs> tendance la fa de. Ah, tendance kon damaa xam ni ku liggéey bu sonn jël sa soxna ak say doom ak ñëpp yóbbu bu demee ba foofu amatul benn sécurité nit ñi fan la ñuy dem. te xam nga lu gën a doy waar mooy. Mhm. fi ñàkk sécurité dafay dem ba yàqal fi am sécurité. Mhm. gis nga yii nii buñ ci teelut a jóg. c'est vrai que petite côte bi bari na zone yoo xam ne c'est sécurisé. Mhm. mais day dem ba nit ñi dañuy ragal parce que dañuy ragal yii. moo tax nañ ci teel a jóg ndax. publicité bu bon la leen di defal économiquement day yàq de. loolu ci gën a tuuti. bi mu mujjee def gardien bi en tout cas oto bi Ndiaye. oto bi Renault Renault Duster la Duster noonu la koy waxee. matricule DK. 27 74 BL. noonu oto bi Duster. lan la. oto yii. Duster la ah, ah, BL. ku ko gis daal man aw moto di ku ci ku ko gis mën nañu contacter yi <laughs> tamit <laughs> yow am nga oto xanaa sa changé nga oto juróomi yoon man nga soog a am <laughs> ah, waaye yow tamit njaay yow ba ngay xew xew ma ba ngay fayeeku fayeeku ma nga may bëgg wan ay oto yi naan ma ay kii njaay sa oto bi ngay dawal bu ma wax loo njaay bul tax ma toog fii mu ñu werante boobu ba tey mu ngi rafet na gën a rafet yow maa yow bokk kii jaay yàpp benn booy bi ñuy jaay yàpp ma nga nekk Ouest Foire ci suufu pont bi joxaat ma numéro bi. boo traversé noonu fa ñuy jaayee xar yi noonu. joxaat ma numéro Paco. 77. 366 51 84. 300 363. 51 84 booy la boo xam ni man moo koy raxi defar ko defal la ci saaku ñëw indil la xar yu ndaw ay oignon. ay piccoretu xar yooyu xar yu ndaw ay oignon. año <laughs> ay año. ah ma ne 77. oto bi ku ko gis 363 51 84 mooy numéro Paco. ku oto bi Ndiaye wala nga am ci xibaar. waaw bàyyi oto bi ñu seeti ma ma. waaw non damay damay joxe numéro bi. Uh-huh. wala nga am ci xibaar nga woo ma ci 77 150 17 17. waaw xam nga am na am na ñoo xamante ne ji dañ ma koo wax. waaw. dañuy bëgg di joxe xalaas. mais dañuy bëgg nettali histoire bi ñu ñu doon wutloo. Uh-huh. mail. mail voilà émission xalaas rfm arobas gmail point com. émission xalaas. arobase gmail point com rfm arobase gmail point com. pour bu ñu amee histoire wala bu fekkee histoire après ñun ñu mën faa jaar pour mm-hmm. traiter kooku après dañ koy dañ koy def si suufu bande bi. Mami Mansali. non non bul euh, kii li ma wax dafa ma métti de. mu ne kii ndax amul ab parking bi ma ko nëbb naan ma ay yow abaa xam ne oto bi moom njaay mi li mu am ci oto man damaa xam na tool ah, waxalante jot na nag waaw <laughs> bu tayee mamee nga weex yi nañ jëm ci mooy subaa yaa ngi ci six yi mooy masal <laughs> gis naa la eh, génération pour ak beneen oto njaay abaa daam yi ma denc nag de eh, ah dangaa xamul yow kuy luy oto ah, aw kuy luy amee ah, nu ñuy def àbb <laughs> mooy masal nii nga ne naan waa ji njaay dafa nekkoon may may man sale ba ñuy nekk xale maanaam ba ñuy jànku doom jaar seen diggante mu jël doom ji ngénte ko. mu ëmbal ko waaw. Mhm. mu mu ngénte ko moom mii di wax. Mhm. tuddee ko Ousmane Paye ancien ministre de la jeunesse et des sports. Mhm. cinq ans après moo ndaw suñu réeroo. waaw. ba bu ñëwaatee ne di wër ndaw si ba gis ko ndaw si ne ko juróo gone gi. ana gone gi mi ngi dund. waaw ndaw si ne ko juróo ko. juruloo ko. te moom waa ji xam na ne moo ko jur. waa ji moo ko tudd moo ko ngénte ndaw si kay ndaw si man woo ko mu ne ma moo ko ngénte moo ko tudd waaye juru ko. kon kay juru ko. ñun suñu dëkk labe. <laughs> kon la wax ko. ndaw si hmm. ndaw si nee na moo ko ngénte. moo ko tudd waaye juru ko. juru ko. Eh, bul de. Hmm, moom kay amatul li kay jarul teg booy. jarul teg pour ñaar mooy heure bi jot na deuxièmement mooy. ñoom xam nañ de. waaw Ndiaye maa koy teg suba nag. waaw mais mais Paas olof ne mag mi jaaxaan moo xam fi biiram toll. Ndiaye. Paas famille duñ juum duñ jaawale. xame nañ de. famille la ko teg mooy nee na ndaw si nee na def na test ADN. ba yegg foofu sax. waa léegi na defa ndànk test bi noo koy defee te ki nga xam ne moom moo ne moom mooy bàyyi doom ji gisuloo ko. ay daam test bu ko jiitu sax. da dafa am lu ci xew Ndiaye. ndaw si daan na jël xale bi di ko yóbbul papa ji. bi waaj a takkee jabar ba mu dem fa bu xuloo jabaru waa ji ci la problème yi am amee nag baatu juróo doom ji moom jigéen bu koy génnee dafa joggi fu dëgër yenn saa mën ngaa bañ a joggi fenn nag njaay doom ji bis bi ngay taxaw naan ma juróo doom ci laa koy noppee jur bu la leer yaa ko jur nag ah leer dafa am yow da ngaa mën a leer lu ba gën a leerlu ki ko ëmbal ah non ñaari mbir mi <laughs> allo présidence. yow nga ëmbal nit yaakaar yaa ko ëmbal mu ne la ëmbal. yaa allo présidence amul man maa la ah, ëmbal ah, ah, kii euh, Ablaye dencal ma bii. information dencal maa la ëmbal te ëmbaloo ma. nga bëgg cee werante technique ci maa la ëmbal. maa la ëmbal. ëmbaloo ma nga ne ko maa la ëmbal